d'accord euh, ci biir loolu manifestation yi nga xam ne fii la ñu daal di jógee am na ci koo xam ne euh, dañoo daal di dagg li nga xam ne moom moo di awraam euh, bi nga ko gisee noo dundee loolu déggoo ma dafa racoro mosol yoo xam ne ñi ko commandé ay Chine ay xam nga xam nga ay Chine ay Birkilington ay ay Zambie am na raccord majeur yoo xam ne sexe ko tax a jóg dañ ci bind raccord majeur sexe bu ko sànnee ci kaw sa sexe day daal fu ko sànni ci àdduna kii xoole kii sama xarit bi nii ray ko xoolal sama xarit bi sama xarit bi tey li gaañu bi mu gaañu naan damay xeexal sama réew xa sama doom laay xeexal man sànni ko ci awra awraam bi dagg léegi fan lay xeexalee doomam léegi <laughs> fan lay amee doom bay xeexal doomam mi ngi ni gaañu te xam naa incha allah moom bu neexee suñu borom safara la jëm par force safara la jëm far force safara la jëm parce que lii lii du jiixaat lii du xeexu yonent bi du xeexu lislaam li xeexu àdduna la xeexu kii bugg naa nekk buur kii taxaw nekk du xeexu diine de waaye xoolal ñi leen di xeexu yëpp ñu ngi toog Macky Sall këram toog Sonko mi ngi këram toog kon nit ñi nañ xale yi nañ intelligent Macky nañ intelligent te te day raxaale ay sàcc am na ñoo xam dañoo xiif osan bii nu yàq ay réewoon réewonde mën ta weesu osan ñu yàq osan réewonde mën ta weesu lii ñu nga xam ne ay bitig fal fuuta la yam bitig fal fuuta bitig day ay mbóot yi yi day ay ay kaña yi def ay ginax ñun yàlla dima ñoom osan osan doo ci weñ osan set na osan siruté na xale da ci profito da ci sàcc da ci def lu neexu yàlla am na maire bu ci sàcc sàngara nag xam naa ne moom barke alxuraanu karim sàcc na sàngara nan na sàngara bi teg ko boisson léegi bi mi ngi nekk almadi daan métti nii tous Macky rek la ñuy topp tous ana Macky troisième mandat xoolal eh, eh, la ñuy topp sàngara bi na léegi xam nga xamuñu sàcc dañuy sàcc ba sàcc lu na ba sàcc lu mu xamul sàcc ay ah, sàcc ay bi mi ngi koy naan taxaw bunt almadi naan tous ana Macky ah Macky lay topp ana Macky troisième mandat léegi dèjà kooku viré na ci Macky ñiy sàcc yëpp xamul ni ñuy sàcc nañu bàyyi osaan yi ñuy yàq nañu bàyyi osaan yi ñuy toj ndax xale yi bàyyi xeex ñu ñàkk ñi day xeex ñu ñàkk ñi day xeex looy xeexal loo xam ne sa papa du président sa yaay du président sa maam du président sa maam du député yow ba xeexee réew mi da nga ko mën a yow dégg nga ñu naan ñu naan ku dee sa yaay juraat bo amé yaay jo xamné dafa jaase du juraat ci adina li nga yakal sa yaay yakato amna nit ñoo xamné ñu mut té nak barke alxuraanu karim billahi wallahi la la wax barke alxuraan kun ci japp xol nga nek xalé bu ñak lé dèjà nga ñak sa yaay ñak sa fam yépp ñak ngay xex police yi la yobula 100 mètres la la ñaari at sa yaay di jógee yëmbal wala mo jógee Pikine wala mo jógee Kër Massar wala mo